naaj bi tàng lool léeg-léeg sax mu ànd ak ngelaw buy yëkkati suuf client yi xaw a wàññeeku bu baax a baax fii ci marché Tilène terewul benn yoon jaaykat yi uuf seeni produit di xaar ku leen wax ñaata fii nag légume jafe na fi lool. ñu ngi nii si marché bi ñu lii lañuy jaay kanje ak koŋ ak tiir mais waaye affaire bi fu mu ne nii bagage bi dafa seer lool lool. kanji mu ngi nii fu mu ngi nii tey jii mu ngi ci mille deux cent kon deux mille cinq cent ci foofu la ñu tollooyu marché bi fu na ne nii dafa xaw a naqari moom parce que bagage bi amul. kaddu gi daal di doon benn ci client yi ak si jaaykat yi yëpp marché bi neexatul benn yoon ndaxte lépp cher soxna si daal di nekk ku yàgg jaay ay légumes fii ci marché Tilène mu ngi ñuy benn bennal yooyu les prix. yi moom xam nga ne chou moom fu mu demee ba jar kilo 1000 francs 1200 jaxatu di jar 1200 carotte 1000 francs aubergine di jar 700 navet 700 seer na te nekkul ñëpp ko mën a am am ñoo xam da ngay jënd pour poser mais ay détail détail te mënoo ko bañ ñàkk jaay détail parce que boo ko jaay détail day desaat say loxo indi la pertement ñaata yoon. métti na daal parce que nekku ñëpp a mën a am posé moo tax. jafe-jafe yi bari yii jaaykatu bouillon légume wala sax jën ñoo ngi sàkku ku leen dimbali ci ay jumtuwaay wala sax financement. man ñu am foo xamante ne dinañ fa mën a teg même bu ñu joxee heure sax bu ñuy wàcc ah ñu wàcc bu ñu amee fu ñuy teg suñuy bagage sax moo ñuy gënal parce que jaaykatu jën foog mu de foog mu glacé ndax jën wi mënoon ne toujours mu jeex da ngay jaay léeg-léeg mu jeex léeg-léeg du jeex bu boobaa nag bu jeexulee foog nga glacé ko. même ñun fi ñu ko teg sax amuñu ko. xanaa ku ñu jàppale rek te yàlla tax euh, koo xam mën nga nu financé ñu liggéey nga xam ñu ay jigéen la mais nag liggéey rek lañ gëm gaa gëm na suñu bopp ndax da liggéey rek lañ xam xam leen lu liggéey ak jaamu yàlla ku ñu financé rek yàlla ah, ñu liggéey rek ndax ñu liggéey loolu xam xam ñu leen lu dul liggéey waaw. ci jamono bi nga xamante ni mbas mii di coronavirus daa sonal ñëpp naam waaye ñi nga xamante ni ñooy jaay lépp luy produit alimentaire dafa mel ni ñoo ñoo gën a sonn ba tax na client yi ku nekk di ut pexe ngir sakkanal ku daan jënd fukk mu ngi koy def juróom